ce pays-là il n'y a pas que dund gi bien que dund gi lu important la il y a aussi un mode de fonctionnement il y a des yoo xamante ne moo ñuy conduire ëllëg à ce que ñun ñu mën a nekk benn pays boo xam ne pays bu euh, bu bu indépendant lay doon boo xam ne du nekk wéeru sukkandiku ci France ak yeneen i réew pour war a mën a dundu buy war a mën a permettre ñu mën a résoudre li nga xamante ne moom mooy dette yu bari yi ñu fi fekk yépp ak jafe-jafe yi ñu fi jot a fekk en si dañ leen a piqué ñu jam ko ñoom dañoo sentir ne lii vraiment kii daal kii man lay waxal kii li muy wax nii lii daf maa naqari donc man forcément damaa war a am am envie tontu mais tontu bi dans sa légèreté à la limite il n'y a rien de profond lu ñuy war a mën a téye dans la réplique bi nga xamante ne moom la ñu en fait c'est s'opposer pour s'opposer parler pour parler ou à la limite bëgg a sa bopp maanaam benn posture noon boo xamante ne amu fii gis nga réew man damaa d'accord ne aram opposition daf cee baax ndax mooy doxal démocratie ñun ñëpp ñoo bokk gis-gis ku ne am nga sañ-sañu itam gisee na la neex mais comme je dis souvent euh, on ne peut pas exiger de quelqu'un le respect quand nous-mêmes nous ne nous respectons pas et nous ne respectons pas la personne à qui nous parlons pour kooku delloo la cër wi dafay jafe il faut yow nga jox sa bopp cër jox ko cër moom ca na ngay waxee nit ñi war a mën a am contenu bi nga xamante ne moom moo fi war a nekk dëgg la l'heure n'est pas à palabrer mais démb ndajem palabre la woon l'heure n'est pas la politique démb ndajem politique la woon seen conférence conférence politique la tudd kon foofu mbiri politique moo fa mën a jóge mhm. sekk que da leen a jaay muus mooy ne da leen a woo ci politique ñu yegg si ba pare mu yëngal génn bi tontu ba tontu waale ñu mu war a tontu wax ba waxaale li mu bëgg wax lépp jaarale ko ci politique on a discours boo xam ne ñenn ñu ngi naan trois heures de temps ma leen tollu que li mu déggu ñenn ñi ba jàpp nañ ne discours bi def na cinq heures de temps mhm. pourtant ba ñu ko ko boo dindee publicité yi na cinquante deux minutes <laughs> na nekk mais li ngay dégg bu la neexul discours loolu non booy dégg na bu ko ngay dégg da ngay yaakaar ne c'est une éternité que le mhm. personne se taise en fait parce que li muy wax daf lay déranger niveau bi la donc aujourd'hui vraiment na ñu xam ni am nañu droit opposé wu am nañu droit wax la leen neex mais ñun dans le constat et dans ce que l'on analyse mooy euh, li ñu doon à la limite réponse bi ñu doon bëgg a apporter mënul am portée bi ñu bëgg bi ñu bëgg mu am ko parce que maire da koo jiitu ci seen ay actions. d'accord jërëjëf euh, Adjaratou euh, Mamy Ngoné finalement euh, discours bi nga xam ni Ousmane Sonko tenir na ko fële ci Grand Théâtre ndax yeewul cette opposition qui dormait sur ses lauriers. gisaguma opposition nag nga baal ma. ah gis naa dem euh, waa benn Bokk Yaakaar nekk ca film la maa ngi la koy wax sànq. Mm-hmm. di def euh, remobilisation des troupes. Mm-hmm. waaye ji nga transparence ak euh, lu jëm ci responsabilité. Mm-hmm. en matière gestion publique. loolu bu fekkee Ousmane Sonko wax na ko képp koo xam ne bëgg nga réew mi da cee war a ànd ak moom. impôt yi ñu war a fay. bu ñu ko fayee mu ñëw ci gafaka Sénégal dund gi dina yomb. ñi sàcc alal réew mi yóbbu. Mhm. ñeneen tabax ci ay immeuble ñeneen def ci ay prête-nom bu ñu ko nangoo ñu goqi xaalis boobu mën naa am lenn loo xam ne dina ko andil askanu Sénégal. Mhm. waaw mais nag ñoom ni ñu waxee noonu rek la ñu mën a waxee man ne naa la man damay wax sama xalaat waaye keneen ku wax xalaatam damay ànd ak yow noonu dama la koy nangul. Bougane bu dee la ko teg ci impo dafa jàpp ne du yoon na wane luy wane ni lii kat dañ ma ko teg waaye awul ci yoon. Anta Babacar Ngom dañuy rappelé wu ne président de la république ñoo sauvé ndengaleer ñañ fa déggoon injustice suñu ko dégg campagne na ba campagne bi jeex demu fa waxu ci ñu baat ko dans son propre bureau de vote kon kooku bu nekkat opposition foog mu ràmpe mhm. ni mu yëgee ci a euh, euh, escalier yi moo xaw a metti da nga euh, xeebalu ma ko ndax moom la woon ci jigéen boo xam ne nekkoon na ci ci jigéen ñi waaye ji nga opposition nag nabu hmm. day dëgër day solide day am argument opposition nekk fii lu waaye def nga ne baaxul lu loolu mooy opposition man jàpp ma ne loolu mooy opposition opposition di nga wax ci li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi mënoo jàpp benn clé benn daaneel xam am na feckat yoo xam benn daanee la am bu ñu ko daanee jeex na <laughs> am benn yenn mbër yoo xam ne benn clé la am bu ñu la ko daanee jeex na muy xam nga ñoom fu ñu ko jàppee ci yaa waxoon da ngay wàññi ceeb bi yaa waxoon da wàññi diwlin bi loolu kese nga ciy dégg boobu ba léegi man dégguma lenn lenn lenn lenn ñu wax ko pourtant mami wax nga ne léegi rapport yi génn na seen yitte waroon naa nekk xam nga lan ànd ak président de la république ànd ak premier ministre ne ko ah rapport yi kat génn na dañu ko gis ni neexul Sénégal parce que duñ la jox alalu Sénégal nga koy sàcc na liggéey bi gaaw accident yi bari na recrudescence des accidents nañu mën a def tey ba xool ay solution yu ñu leen proposé pour ñu def ko xam nga opposé nag dafa am temps. Mhm. opposition da am temps de. am na foo xam boo fa tolloo kenn la wax bul opposé. waaw mais jamono bii ñu nekk nii nii nii nii. da ngay jàpp ne Ousmane Sonko moo nekk premier ministre moo nekk chef de parti moo nekk opposition xam lu tax moo yëngal géem bi dafa loo woon déggoo benn yow benn opposant nga gis muy wax fan yi ab Pape ba jaxate saaga nga gis ñu xaw a génn seen rukk tuuti comme kaña commencé coof ñu xaw leen na kii ñu daw delluwaat kon loolu du opposition opposition day defar réew Ablaye Wade amul kenn ku ko gën a nekkoon opposition ci Sénégal danaan dem di liggéey ak état parce que daa bëggoon réewam. doo da ngay nekk opposition rek lu dangay teg bët état parce que gañe na la mais da ngay gëm yàlla ci benn côté ñoom yàlla moo leen faral awale ko ci askanu Sénégal ci seen ay carte électeur mais doon na ñi ni ñu faloo neexuma rek ba lu ñu def duma ko gis duma leen gisal lu baax naam sax mënoo ko gis lu baax nag ndax ñetti weer mënoo cee gis dara ku la wax dund bi day wàññeeku tey ak suba wax la dëgg mënu ne ku la wax inondation lu am mënu ne ñi dañ fa fekk liggéey boo xam ne fukki at ak ñaar la ñi woon dugg nañu école ñenn ñi booy xool ña ngay takki jabar ndax mënu nekk ci ndax 12 ans lu nekk xaj na ci léegi liggéey 12 ans ak li jot am yépp rapport yi ñu nëbboon tey muy feeñ ñu jotoon na sàcc mu ngi feeñ ñu jëloon na jël terrain jàmbur yi mu ngi feeñ leen loolu yëpp ñu bëgg ko xool yow nga ne ko déedéet da ngay ñëw tey rek mu ubbi <laughs> tey yaa tey ñu ko fi defoon sax marché wu ça n'a pas marché moo tax opposition bi il faut ñu jéem a seen bopp te xawoon ak muñ ndax opposition day ànd ak muñ ku xool li xew Grand Théâtre xam ne yàlla rek kay buur ku daan oote manifestation ñu la koy tere nga woote rassemblement ñu la koy tere nga dem ca Grand Théâtre diggu Ndakaaru te mën nañu wax trouble à l'ordre public daan am ñu andi la force de l'ordre yi ñu taxaw di sécuriser ba nga pare ñu ñibbi kon nit parfois dina neex géem dina yëngu waaye danga ciy boolewaat tuuti gëm yàlla xam ne yu bari lu am ci falu Bassirou Diomaye ak Sonko yàlla def ci dugal loxoom boo xoolee loolu rek di nga am benn temps boo xam ne di nga ko def wax nag kenn bul opposé wu. ndax opposition mooy neexal de euh, réew mais ñu ut ay argument teel ko pare te xam ne dina yàgg dana neex. yow mi nelaw soo mu ne yow xam ne ci opposition bi nga bokk comme ça nga waxal sa xalaat. <laughs> d'accord euh, Baye Assane sa xalaat. ci opposition bi jaaxal man na café de. Euh, man yow damay tudd rek ne ko naanal ci kafe gi. opposition bi position bi nga xamante ne jël nañ ko ñoom daal dafa mel nii dañ doon xaar Ousmane Sonko génn pour ñu mën a tiire ci kawam. quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous vous voulez vous attendre à quoi li gis démb mais c'est normal que si en fait ma si rien de plus normal que cela quand quelqu'un y a deux choses quelqu'un ne vous aime pas ou n'est pas d'accord avec vous ou n'est jamais d'accord avec vous waaw ba nee da ak aw xam na te nag xolit mhm. léeg nga bind nii wuy ma. oui Samb. waaw léegi la nga bind di wax ak nit boo xefee sax yónnee ko texte bi du liir texte bi de amul temps lire ko talu ko sax. mais léeg-léeg day xuloo nit yónnee ko yéen plateau yi yéenay toog fii di wax texte.